tukkib nemmeeku bii nga xam ni ki jiite assemblée nationale bu cap amal na ko fii ci Sénégal ànd ci ak naataangoom bi nga xam ne fekk na ko fii tax na day ñu mën a amal liggéey ci ñaari wàll yi ngir waxtaan xool naka la ñuy def ba gën a mën a dëgëral diggante bi nga xam ne moo dox ci Sénégal ak Cap-Vert waaye itam ñaari assemblée yi mën di lëkkaloo di xaatim ay lu ci mel ni ay convention ak i partenariat ci salle bi ngeen gis nag ak séance de travail maanaam di ndajem liggéey boo xam ni ay député yu bokk fële ca cap ak yu bokk fii ci Sénégal ñoo ko amal ngir daal mën na waxtaanee loo xam ni soxal na ñaari réew yi lee Sénégal ak cap ku ne xam na ni ñaari réew la yoo xam ni seenub ànd ak seenub déggoo lu yàgg la muy diggante boo xam ni bu ratax la ñaari parlement yi nag moo xam muy assemblée nationale bu Sénégal ak itam bu Cap-Vert fas yéene ko gën a jëmmal te it gën koo dooleel moo waral sax tukkib nemmeeku bii ki jiite assemblée nationale bu cap amal ko fii ci Sénégal ci bilépp wisit nag lu baree bari fas yéene nañ ko ci amal ne bu weesoo ndaje mii nga xam ne dox na ci diggante ñaari parlement yi te mooy ñu waxtaan xool naka la ñuy gën a dëgërale seen diggante waaye itam weccoonte ay xalaat ngir daal ñu gën a mën a amal seen liggéey ca na mu gën a rafete loolu nag ci activités yi nga xam ni fas yéene nañ ko fi amal weesoo liggéey bii ak signature livre d'or bi délégation capverdienne bi war na dem ci ay site culturel fu mel ni gore ak yeneen i bërëb yoo xam ni nekk nañ fii ci Ndakaaru te doon bërëb bi taarix ngir mën fa amali wisit